lu waral euh, daje bi tey man euh, maa ngi tudd Mahet Wade donc alors euh, nekk fii je suis collectionneur d'art et puis ndaje bi c'est que dañu ki gis ni village bi am na galerie boo xam ni galerie yi am yi mel ni village bi au Sénégal bari bariwul et que galerie bi il faut muy vivre village bi aussi c'est un lieu où lu mat cinquante juróom fukki Euh, artistes ñoo ngi ñoo ngi fi di liggéey tous les jours et que seen liggéey aussi ah, euh, euh, macha allah am am na na kii léegi nag dañu ki yoon bëggoon que ñu ñu arrivé que lii du nekk benn mais yu bare bari di ci topp incha thème bi moom mooy hivernal hivernal soo ko kiiyee déggee moom mooy taw bi taw bi vacances yi donc alors euh, ñun dañu seet ni vacances jot na et que euh, il faut ju def euh, loo xam ni ànd na ak vacances yi xale yaa ngi vacances taw baa ngi fii et que moom moo tax ñu def daal comme alors li ñuy wax nawetaan voilà donc alors ñoo ngi def nawetaan sur la culture aar aar bi ñu bari ñoo ngi naan marché de l'art amu fi marché de l'art bu nu structuré dëgg la amu fi mais nag euh, gars yi ñoo ngi defar ay œuvre yu gaa yu nit ñi bëgg ñu di ko jënd di ko jënd. sénégalais yi ak ñi nekkul euh, si sénégalais ñoo ko jën et que man euh, wóor na ma ni suñ defee effort ñu ñu gën a xam aaru seen Sénégal euh, dina dem ba mel ni Nigéria ba mel ni Afrique du Sud ba mel ni Accra où artistes yi ñoo ngi jaay ay œuvre yuy dem ba presque léegi àgg na ay milliards même artiste Côte d'Ivoire am na am na ñaari fii nag Pape Ibra Tall Ibou Diouf Iba Ndiaye ak Aba am na alors ñoo xam ni ñoo ngi jaay œuvre yu cher à cher il faut que ñu arrivé ci kii boobu. département bi changé na kilifa Abdoulaye Diop fi nekkoon jox na leen ngay Aliou Sow professeur Aliou Sow muy mu di ku ne lan nga di xaar ci Diop bu bees bi. waaw waaw eh, Abdoulaye Diop eh, ñoo koy eh, ñoo ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy sargal parce que lim fi liggéey ba liggéey baax na. ah jëwriñ ju bees ji nga ji ji nag am na liggéey bu bare bare bare parce que en fait Sénégal soo gisee étranger soo leen nee Sénégal ñoom xamuñu xamuñu ni am nay artistes plasticiens am nay sculpteurs am nay kii. ñoom alors man daje naa ñu bari soo leen nee Sénégal dañuy yaakaar ni musique moo fi am làmb moom fi am comme <laughs> waaw <laughs> alors que euh, bi ñi ñi ñëw fii ñëpp dañuy waaru dañu naan man xawma woon ni Sénégal am na lu mel nii donc nag il faut ñu jëmmal ko def ba euh, daal affaire yi euh, jëm kaw ba ñi ciy liggéey gën am euh, liggéey bi gën a dox gën a liggéey kii oui yi aussi euh, dama gis que euh, musiciens yi am nañu groupement nekk benn comédiens yi aussi làmb ji il faut que artistes yi am regroupement boo xam ni dinañ mën a toog liggéey ensemble pour mën a jëmee affaire bi ci kanam mais nag ñi nekk fii ñi nekk fii daal loolu moom mooy problème mu artiste Sénégal aussi les critiques d'art parce qu'en fait soo génnee seen Sénégal li lay wax mooy xam nañu ni Sénégal am na artiste mais mais mais mënuñu ñi ñuy jaay par exemple sob sob sob bis ma ma ñu ñuy jaay il faut ñu xam leen donc alors il faut que critique d'art yi di bind ci artistes yi di jéem a bind aussi en langue anglaise parce que aujourd'hui soo seetee euh, Nigéria Afrique du Sud Ghana c'est les pays anglophones euh, francophones euh, euh c'est bien mais euh, euh, tey tey alors le monde de l'art le marché de l'art se joue à Londres, aux États-Unis, à New York, à Londres. Et puis alors, c'est plus euh, ces marchés-là qui sont, sont les marchés émergents de... de, de, de alors, mon appel aux artistes, alors euh, je le dis qu'il faut qu'il faut alors qu'ils qu qu se rassemblent, qu'ils soient unis, parce qu'en fait, euh, on a vu Euh, que les autres, les artistes sont unis, les musiciens ils sont unis, les comédiens euh, sont unis, mais, mais, mais, mais les artistes, euh, moi là, je les vois avoir désunis. Ils font un beau travail, mais qui ne peut prospérer que si on, euh, euh, ils sont unis et que donc alors ils travaillent tous ensemble pour le bien pour le bien de la communauté artistique, euh, surtout de l'art plastique. Euh, donc alors des sculpteurs, des, <laughs> parce que alors euh, rien n'empêche euh, qu'on qu qu arrive à ça. Aussi, il faut que les critiques d'art, donc alors euh, travaillent un peu plus, plus et font connaître les artistes sénégalais et leur travail. Et que pour ça aussi, il est important que le travail se fasse aussi en anglais, parce que les marchés Le marché de l'art, ça se surtout à Londres, avec Bonham Sotheby's, à New York aussi, Christie's. Donc, euh, en, en France, euh, il y en mais en Chine, en, Chine, il faut qu'on sorte de notre euh, francité et qu'on essaie un peu euh, d'atteindre les marchés où se joue. Donc, alors. Euh, parce qu'en fait, euh, la langue, euh, non, mais si les critiques d'art écrivaient, écrivaient aussi en anglais, si les diffuseurs euh, diffusaient aussi dans le monde entier, nos artistes seraient mieux connus et, et pourraient donc alors euh, arriver à un niveau euh, qu'ont atteint les anglophones et aujourd'hui certains francophones, des Ivoiriens. aussi donc, arrivent à pénétrer le marché de l'art. Ils sont à Londres. Quand vous, vous voyez les brochures euh, euh Sotheby's, Bonhams, Christie's, vous verrez tout ce qui marche. Donc, alors, il faut aussi que l'anglais, à mon avis, est un euh, véhicule important dans le marché de l'art. Merci. man man alors maa ngi njëkk a def nekk commissaire d'exposition man en fait euh, amateur d'art la collectionneur d'art mais euh, yi ñoo toog ñëw certainement ni ma euh, comme daal euh, galerie bi dafa tëj il faut nga ñëw euh, pour def benn jéem a jéem a woo woo quelques artistes jéem a def donc même su ngeen sase euh, fee mais am nañu ay artistes yu nekk ci village bi ak ñeneen ñu jógee feneen ñëw euh, donc alors pour jëmal euh, l'expo qui est en cours ici au Merci,